salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi amaat uh, mbégte bu baax di janawaat ak uh, askan wi bokk yi nga xam ne nag dañuy màggal si ca mu doon uh, képp ku nga xam ne rek ak foo mën a bokk